dond ah. way dund way way bu deewee na ngeen ma ko jaal yàgga bi way takk der di ca fande ko dunde ma jaal ba mu wàcce ma jox ma ngërëm maa ngi sant fa neexma di jaal di ma tëkkale ak ñela <laughs> wëy ëmb la ak yaawu jaal jaane daam la di bàyyi karim foog nga yéemu bu may irtijaal asalaamualeykum kon ku ma ñoppati nag ma ko baal bismillahi rahmaani rahim bu doon ne nit la ne nun jox nañ ko yenn ba mu wéy ngir mat na kaw mate suuf ndax am na ñeen fukki at at yeey daaru salaam bu doon ne nit la ni nun jox nañ ko yenn ba mu wéy ngir mat na kaw mate suuf ndax am na ñeen fukki at 1983 15 janvier ca la woon mbubbum wilaaya ma ak maqaama xëy na ko jot pas-pas bu ànd ak cofeel gëm Bàmba dëggu gu wér ñooy waajuram ya ko yiir waral mu nekk ku mat daaru jàmm ak xéewal na wàcc ci yéen may taarixal ji ma daaki kayit salaam jàmm ak xéewal na wàcc ci nun may taarixal addiyay ren abal ma kayit sëñ Moodu Roqaya ak rakkam ya ñooy ña ko door muy ñetti millions yi teg Cheikh Abdoul Ahad la ko yët at yaa ngi daagu di wéy jéegoom ya it gën a bar 19 96 millions ya mat 18 sëñ Modou Roqee dem ginaani noppalu ji sëñ Seexu Anta Fobaat ñambaas ko ba mu gën a jot jàmbaar ji sëñ Xaamidoog sëñ sëñ Asgede ku na bay na waar ci tool bi ba tax meññet ma woon yolo jàmbaar ja sëñ xaamidu ak as aas ku ne bay na waar ci tool bi ba tax meññet ma woon joloxul sëñ jiili mbàkke ma doon làmp ngëneel ak i may ànd ak sëriñ seex ci tool bi bay ca ay ati at dem fekki kàngam ya dem fekki kàngam ya sëñ abou muhammadu ñëw ndànjaam ngay gën a naat xéewali naan rutatat booy bee ba tey aj yees loo ngi yokk di yéeg yeesal na yitte yi fóot pas-pas yi ba mu gën a set ren jii 365 ci million lañ yët sëriñ Muntaxa ña jiitu ñëpp la jot jaaraama yow Seexu Anta Mbàkke yaa rëyi ndam yaa doon lu saw turandoo mbootam ci yow la ko fat jaaraama Anta Mbàkke yaa rëyi ndam yaa doon lu saw turandoo mbootam ci yow la ko fat laa xarwa laa xarwa ndax te sa waajur jox na ab million jébbal ko alxaaji Fallu boole cak alimet laa xarwa ndax te sa waajur jël na ab million jébbal ko alxaaji fallu boole ci ak alimet ràngoo nga raayoo tànneef yépp doon wuta am siggil ndamul jërëjëf sam kem tegoo si ko bët sa juddu jaay nga ko jëndee ko ak murit ci lu wér pasteef ji sag laxasaay loo yootu faw mu rot waa kër sëriñ bàmba yii làmboo nga seeni ngërëm jàmbaar ji yaa yaatu waar loo bay dafay set a set say jëf ci mbindeef yi mooy wax set wu xiin dërale looral nga fépp ki may foo toll naan sa totot as gor nga ab tab nga ab yaaram bu tedd nga yit teraa ngay defaree saw nit mësoo yare yat tibbal nu may yu nu doy tànnal nu cër ya fi gën naddil nu xéewal gu ànd ak jàmm mucc ci cat bërgal nu pey yi ba ñuy wëndeelu biir jabaroot fuy ndam ne moon nga ni ciix reenam ba teg suñu wet ñaanal ñu yàlla mu far suñ rëcc rëcc yëwëy wër sa teraanga ju sax lu ñu yéene yàlla la mat sab taalibe yi bérélu cantam jëmee ko ci yow mat nga sëriñ ci lu wér mat soppe mat nga xarit yow fecciroo kóllëre rek sa baay ba téye nga ma lool suuxat ma siggal ma kon sab nawle sa nawle ñépp ma teg bët yow fecciroo kóllëre rek sa baay ba téye nga ma lool suuxat ma siggal ma kuy sab nawle teg na ma bët mindee fii kon seede leen santu Galaxy la gi ñaanal ko muy sant kat buy sant cant bu jot mindeef yi kon seede leen cantuk Galass Sylla gi ñaanal ko muy santkat buy sant cant ko jot ñaanal sëriñ Seex Anta Mbàkke yàgg te wér nuy ànd liggéeyu sëñ Tuubaa bi ay ati at bis nag du tuut léebu ne borom ba lay nuru kon ndokkele sëñ Fàllu buur jaxi bët bis tuut léebu ne borom ba kon ndokkele sëñ Fàllu Sylla daa war ku buur joxi bët dundal nga diggante bi Seex mustafaa tabaxoon sëñ Ahmad Tindoodi ak sëñ Moodu bët la ci bët ñoo jànge gànnaar ba peeg xam-xam ba ya yoroon ñoo jàngee gànnaar ba peeg ba naar ya yoroon ñëw takk ak laxasaay bay tool ya cat ba ci cat tuddee nga bis bu murit tuddee nga bis bu murit saadix bu dëggu te way tànneef ci biir tànneefi tànneef ci tànneefi tànn bu yàlla jëmm ju mat tuddee nga bis bu murid saadix bu dëggu taway tànneef ci tànneef tànnub yàlla jëmm ju mat dundal nga taali bu dundal bokk dundal yiw bur yàlla yàlla na la ful sa dund junni ba at sëñ Fallu dundal nga taali bu dundal bokk dundal yiw bur yàlla yàlla na la ful sa dund junni bi at wasalaamaaleykum wa rahmatullah